fexe ba xale yi mën a xarañ ci wàllam natt ñu naan ko matière scientifique mooy seen bëgg-bëgg ñoom waa saytu Bambey moo tax ñu amaloon ay cours de vacances ngir jàppale xale yooyu le Maxtaar Njaay yi tey ñu daje woon fii doon euh, ndokkeel élèves yi nga xamante nii dañu amoon initiative bu toll nii ñu jël leen euh, former leen ci matières yi nga xamante ni xayma lañ koy tuddee mu doon matières yu xaw a difficile pour dimbali leen bu école tijjee matières yooyu ñu war a gis du doon benn problème mbala duñ ci am problème yu bari ndax buñ ko defee ci vacances yi daf leen di yombal bu école tijjee ñu mën cee am ay notes yu baax te loolu liñ ci jublu nag mooy que ni xereñteef bi nga xamante ni moom lañ bëgg élèves yi xereñ ko fii ci Bambey dañu bëgg fu ñu tuddee élève bu xereñ rek ci Sénégal ñu boole ci waa Bambey te loolu moo ko sabab ñoom ñi le sax nee nañu jafe-jafe xale yi le ci matière yooyu le moom moo di nasaraan gi nga xam ne moom moo di base bi te ñu bëri ci ñoom dégguñu ko. waaw base bi nag moom xam nga français la et souvent sax bu ñuy wax ne matière scientifique yi dañu difficile du question que ni dañu difficile mais li mu war a àndal moom la àndalut ndax du dem moom kese il faut que mu ànd ak français bu dëgër exercice nu la koy jox ci français lañ koy làkk donc te dañuy comprendre lool ndax français du sunu langue bi nga xamante ni moom lañ nàmp saytu Bambey ci cours yi nga xamante ni def na ko tey dina ci ñambaasaale ci année yi di ñëw yeneen matière yi te duñ yem ci français rek dina dem si anglais bi ak yooy yëpp parce que aussi monde bi ni muy doxee dañu soxla français dañu soxla anglais et puis pour la compréhension des mathématiques et autres matières scientifiques il faut que yooyu matière aussi nga mën ko comprendre bu baax ñoom ñii le sax day yemuñu euh, ci wàllam njàngale mi rek waaye nag fu nekk dañ fay yëngatu ngir jàppale Bambey ci fànn bu nekk Makhtar Ndiaye. yemuñu ci njàng mi rek parce que boo seetloo yéen ñi nga xamante ni yéen ñu interviewé tey yàgg ngeen ñoo interviewé te ci yeneen cadre lay doon wal maanaam ci wàllu social ou bien ngeen fekk ñu ci wàllu santé ndax saytu Bambey noonu lay doxee donc nekk mouvement boo xamante ni taxawu askan wi rek moo ko ñor. donc nekkoon na nekk nañ tey ci éducation bi te li tax ñu jox éducation bi poigne bu am solo dañu gis ne développement dëkk boo gis ci njàng mu baax la lalu loolu moo tax njàng bi moom ñu jox ko priorité même santé sax dañuy wax ne santé mais santé bu baax bala nga ko am da ngay am nit ñu jàng xaal yi nga xam ne nag ñoom ñoo bokkoon euh, ci euh, mbir moom nga xam ne moom moo di cours de vacances ñoom day ñu ngay rafetlu lu ni mel te nee nañu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi jàppale nañ leen bu baax a baax. metti na méttiwul ndax élèves yi dañ naan metti na mais man moom néew ma ayu ma si aayu ma si moom mais am na lu ma si xam as tuut loo xamante ne nii suñ professeur yi ñoo ñuy encouragé di ñu wax chaque jour que ni di leen concentré woon ndax boo gisee euh, scientifique bi boo xoolee Sénégal boo ko xoolee xoolaat ko ba ci biir scientifique bi daal moo si moo si ëpp te su ma sañoon tamit élèves yi ñu bàyyi wax boobu naan fra euh, mathématique dafa metti mettiwul ñu gën see concentré wu daal xam ne ñun yoruñu ay yoruñu dépense yoruñu dara suñu rôle mooy concentré wu te buñ buñ ko jàppee woon noonu concentré wu bu baax bañ a am benn jot bañ am benn jot taxawaal bañ am benn fo bu boobaa dinañ lii mat bi ndax mat moom concentration rek cours de vacances yooyu lee ñi nga xam ne ñoom ñoo waa saytu Bambey daal di ko amal ci biir Bambey ngir jàppale xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe lexament yi ak yeneen xale yi ngir ñu mën a xarañ matière scientifique ñoom ñi le sax nee nañu dinañ gunge yeneen xale yi ci wàllam fànn bu nekk ngir nag Bambey gën a mën a xarañ ci wàllam scientifique Malick ñi ngi Bambey 24